سيدنا محمد الفاتح الخاتم والهادي إلى صراط الله المستقيم وعلى آله وأصحابه وتابعين لهم بالعمل الصالح إلى يوم الدين ورضي الله عن القرب المكتوب والبرزخ المكتوب سيدي أحمد بن محمد بن سالم التجاني وعن سائر خلفائه عليهم اجمعين مكي فليس السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سرين محمد المنصور كابريني وكابرو مرتدي لاريكي والو كونترامي نيكو سنو باي بي وحي باي الحاج منصور بي. yàlla moo sabab li mu sabab ci Sénégal ñaari at yoo xamante ni sunu waajur joxe na ndigalam pour ñu cesser activité yi mu waroon di doxal ngir sababu toppaatu li ko diineem dénk mu di warteefa waaye réew sas ko ko mu di jàngoroy corona bu fi dugg keroog bés bii mu taxaw taxawoon mu ni bu mu am ba mu waxee ni bu mu am amul jaale ko ni sunu waajur wax yàlla na ko yàlla doon leer sëriñ Papa Malick Sy yal na yàlla dolli leen leer ñoom ñette barzaq yëpp magam yu tedd ya ak wéyjuram yu tedd ya ak maamam yu tedd ya ak mbooleem ndawi jullit mu joxe ndigal li ñëpp nangu tabarakallahu boobaak léegi kenn deful dara bi nu demee ba ministère de la santé dalal xel xelu Sénégal yëpp dal ci ni feebar bi doon tele mu ngi fi def ba léegi waaye des na waaye dalal na xel ci la joxewaat ndigal bi mu woo ma ma ñëw mu dama bëggoon nga organiser ziara générale bi ñu jëm tànn date le 13 mars ni ma nga doxal ko ànd ko ñi nga ko war a àndal yëpp ma ne ko sa ndigal rek la ñu ci doon xaar booba ba léegi dairatul kiram dairatul ahmadiya ñoom la Serigne Babacar joxoon bés bi ñuy ñëw àndandoo yéeney taalibe yëpp ak mbokki taalibe yëpp pour sofal si fii ci waawoon def ko mu nekk rassemblement général mbokki taalibe yi aju malikiya as siddiqiya ak tiwaawaniya ñu ñëw pour def ko mu nekk seen bésu jaayante jaayante nag cosaan la ci diine yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy def bu toogee ba mu yàgg mu wax ak saxaaba laaj leen laajam ba abayaatum ñoom ñëpp delloo ko laaj ndax feddali ngeen seen wëllëre ñoom ñëpp delloo ko laaj bi nu nu koy defee moo leen koy saal boppam dina ku nekk tudd ñaari seede yi ko ci xolam tudd ko ci làmmiñam baaxal ci ñaar ñu séq wëllëre yàlla itam baaxal te la mu ca baaxal ni ñaar ñu séqati kóllëre ba mu jàpp ñu daje ci bërëb wala toog ci bërëb di ko waxante nun yàlla danañ ca wàll si ñëw fekkee jaayante ko inna allazina yubayi'unaka innama yubayi'una allah yadu llahi fawqa aydihim faman nakasa fa innama yankusu ala nafsihi ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسنؤتيه أجرا عظيما كاين تبوب مملة واكاو أسمان دفك سين بروب جاين تبوب مملة أنبياء والرسل دفك سين بروب جاين تبوب مومل أقطاب الخامسة دفن سين موم جاهل تبوم موم لقول العزم من الرسل دفن سين موم يونت بنا لمن ما يكيبو نجك دفن لهم با نكلم واخ فبايعناك على السمع والطاعة والتبليغ الرسالة والأمانة والأمانات jaayante boobu moom la yëkkati naka la dégg aaya bi yàlla tuddal ko boppam rek yëddul qudrati moo fekk si loxo ci kaw loxo moo tax yëddullahi foo koy nii bis boobu moom la nu sunu maam yu tedd yi fental fii ci Tiwaawan tey ki ko moom di sunu wayjur wële Cheikh Seydi Aboubacar Sy Mouhamadul Mansour yàlla na ko yàlla doon leer yàlla na ko yàlla leeralal nekkinam ak i jéemoom yàlla na ko yàlla dolli wér yàlla na ko yàlla mottalil ay mébétam ak i summam yàlla na nu yàlla dugalaale ci biir mu jiitu nun ñëpp topp ci gannaaw ndax nag nit dafay sagal kilifa sagalul sa kilifa yaa ngi war ci kaw garab di dog branche ba nga toog te fekk na xamuloo bu branche ba daanoo du la fa lay kon dellu si waat delloo ko lépp dellu si waat delloo ko lépp dellu si waat delloo ko lépp yaakaar naa ni tey ku tedd ci kër Seydi Hadj Malick rek mooy sa wartif ñu ñaanal ko yàlla ndax nag ku des yow mag ñi te daf daan wax ni boo fekkewul boo fekkewul ngërëmal mag da ngay fekke fekke seen ngërëm nga sonnal ko bu la gërëmee fekk nga seen gërëm loolu bi mu nu woowee mu xam ni honneur bu rëy la ndax téeméeri junni junni taalibe nga taamu ca kenn woo ko ni ko doxalal ma lii honneur gënu ko rëy junni ni ma nan ko organiser te bu ko bàyyi te na nga te na nga ci def bu ko bàyyi muy yàqu na ko doxal ci yoonu xaqiqa kër ma ni ko danaa bu ma jógee ci yow danaa woo Serigne Mansour Sy bu Seydi Mouhamadul Moustapha danaa woo Serigne Mansour Sy والسيد شيخ احمد تيجانسي المقبول سنه 6 dana woo Serigne Cheikh Tidiane Sy Mansour ndax moom la nu Serigne Abdoul Aziz boole fii ci kër su ma ca jógee dana woo Serigne Babacar Sy mi nga xamante ni mooy taawu baay te taawu baayay baay bu ma ci jógee danaa woo Cheikh Mouhamadou Mansour mii tey xaw ma woon ne ndeke booba moom la ko fas yéene jox pour mu ñëw teew si ndax ngàntam te nangul sa mbokk ngàntam rawatina sa kilifa ci mbaax la ko nu tase ci réewu Sëriñ Babacar Si ma wax ko ko ba yeggal mu ñaan ca ñaan yu rëy booba dafa ziyaar ñaan ca ñaan ni ma sa barke maam dana la ci gunge allah ndam nga kii am tey la sabab loolu gannaaw bi nu yëgee ngàntal suñu wëyu jurwa Serigne Babacar Sy Abdoul Aziz ñoom ñëpp yal na leen yàlla gën a dolli tawfiq nu jóge ca woo Serigne Habib bu Serigne Mansour Papa Cissé woo Baye Mansour bii ndax dama teel a seetlu sama wëyyu sëñ Abdoul Aziz lu muy def bu ko waxtaanee ni mu ko war a waxtaanee ñëpp ci ay kilifa moom mii dana ko ni ko nangam ak nangam mu ni ko nangam ak nangam naka laa ko wax mu rafet encouragé wëlbatiku mbooleem kuy ndaw ci xadara bi Serigne Habib Sy Mansour Serigne Habib Bosam Serigne Mam sëriñ al xalifa ababacar si bu sëriñ habib action daara ji daayiratul muxtasina waaye laata ñoom mag ñi nga xamante ni ñoo tos cosaanoo ziar bi daayiratul kiram nga xamante ni ñooy kiramu sahaba daayira ahmadiya daayira fédération ko ak koskas àndandoo ko ak mbooleem structure bu yëngu xalisa tudd na leen léegi xataa yu waxtoo tax bugguma leen a tudd sëriñ Habib sëriñ Abdoul Aziz bu Bab Sidi Ahmed ma woo mbooleem ñi ñu ko seqal te daan àndandoo di yëngatu bu lii xewee ñoom ñëpp jox na seen avis favorable ni man naa wax xalifa bi ni ko ñoom ñëpp d'accord nañu ànd pour fas yéene mottali yéeneem ba mu rafet

jox na ko ndigal ni ko na woote ca Thiès ñu yeggalee fa CRD bii nga xamante ni régional daan nañ ko def naka njëkk ci xew-xewu gàmmu waaye mësul am ci xew-xewu ziar ñu jóge ca foogoon ne fale ñam mu woote ca ministère ba woo ko mu am moom Félix ngir dëggal kàddu président Macky Sall ci ziar général bi nañu ko def mu nekk ziar bu exceptionnel ndax la ko fankoon ci njëg ci njëg bi moo nekkoon ziar la woon bu ñu def bay bëgg def suba ñu ni fonk na ñëpp ànd ci ngir mbaaxu xalif général Seydi Aboubacar Sy Mouhamadou Mansour tey yabal na délégation bu tedd bi El Hadji Omar Gueye sunu mbokk Abdou Karim Sall فتبارك الله قد نيلين تدنا نيلين لكي واي نك ما ام تي كين كو خامتيني سما واخا دولا دي الحاج اي بيرو جينغ مسكي سيد الحاج مالك تخاوي يمو كي ديف بوكو يالا سوتلي ان شاء الله سبو بوكو تي ريو بيرو واي سبو بوي دولي واي سبو بوي تاجي ان شاء الله ñaan mooy yàlla na ko yàlla may mu yeggale suñu yëpp ak ñu mu ànd ku mu ku nekki boo amee mébét sax nee na la demal seeti mu soba demal seeti mu soba ndax moom laa waxaloon ban ndox yabal na El Hadj Maxtaar Cissé mu ànd ak sunu baay bi maam baay bi am alfa euh, si dabaax El Hadj Maxtaar Kébé ni ma demal nga santal ma mu soba ak nun loolu rek doy na satisfaction liggéeyal sa kilifa yeggala ko sax mu di la sant mu ngi lay encouragé ci ni la noonu nu ñaanal ko yëpp loolu lañ doon jéem rek fa tabarakallahu rafetal ko parce que nu toll ci jaww ku nu àndul nekk aw say nun sëti Seydil Hadj Malick ñi mu ci géño ak ñi mu ci diine kon fan la ñu jëm àndandoo boobu moom la mébét moom la bàyyi woon suñu way jur wa Cheikh Seydi Aziz Al Amin mébét moom la doon wax ak yu mujj yi mu dundandoo noonu yëpp mu ngi ñuy jox kàddu kenn al maktum mu nga jëru ko ba dinaan ko bu ngeen àndee danaan jënd ni ngeen ko bëgg fexeel ba ñëpp nga rassemblé mu ni ma ko jox nu àndandoo ca moom boobaak léegi bi mu fi jóge tey moo wóotu mag ñi moo fi def te waxoon na démb Babacar Cissé di wax na ko ñun bëriwul ñu bëriwul nag dañuy sësalante ay mbagg fonkante bàyyante xel te ku taxaw rek taxaw na morom ku taxaw rek xam ni diw kat mu nga waaye mu xam ni moom la taxawal ndax bu ndam di dikkee ñépp a bu ndaw li dikkee développement wu réew ci loolu la ay ñu bëgg nag ñaan ñii fi teewal borom réew mi gannaaw cant yi yéen a koy dañ koy ñaan rek gannaaw bi ñu ko sante ci fan yi ni mu doxe feeñal orman bi kilifa diine Sénégal alalam mooy kilifa diine amuñu pétrole amaguñ ko ko feeñagul gaz bi mu ngi koy tudde ko tuddee waaye alal bu sûr bu ñu mën a wax mooy mag ñu baax ñi nga xam seen leer ak seen i keñeer moo tax a foor doomu Sénégal ba tey adduna bi fu nekk ni yëngu yàlla dina may daldal bii kon orman leen farata nag ci kuy sénégalais ñàkkee leen orma ku màpp sa yiw nag da nga dul xam ndax la ca fekk seen déet ñu sant ko ci loolu mu def mbokk moomu yëkkati kàddu kàddu bu ñaaw jëmale ko ci ñoom ne lu ñaaw euh, fa nga ko jëmale dëkku fa fa mu jógee la dëkk ñoo xam nga boobu waaye nun nu ngi xam rek ci ormance kilifa sa monteeg li nu war ci ñoom ñu ñaan nag mbokki taalibe bi yëpp ànd ak ñun ci loolu jàppale bu rawatina kële nga ni tey bis bi bisam si sëriñ Babacar Sy moom lañ ko joxoon daayiratul kiram di ñëw di ko fekk si muy seen bisu jaayante jaayante bambara ba la sëriñ Abdou daan wax ngiri ndundi la daan wax seen ngiiru dund nanu ko jël jox ko koosu xadra bi te ànd waaye mu sant nag ndaw yi ni bi mu may woo wax na ma naa woo ndaw yëpp ndaw yëpp woo naa leen waaye ndaw yëpp wuy si nañ yal leen yàlla géneen barke bu daggee ca la Sidi Hadj Malick am ca yàlla ba ndaw lu fi teew ak jigéen ñi fa tabarakallah yàlla defal leen mébét mu sokki kenn ku nekk am teraanga am sutura mottali la sa mébét zahiran wa batinan ñu ngi sant presse bi waaye sant sunu rakk nag Abdoul Hamid

li mu doxal yëpp semaine ziar bi en direct la koy def te ku ne xam na ni diffusion direct xawu la waaye def na ko yamu ca dem jël alal yu bëri ni nañ ko séddale waañ yi waañ yi nga xamante ni ñoo koy def boole jeeg ay bonne volonté gis nga ziar bi bindu nu kenn kenn kenn pour mu def ci lenn lenn donte la am na jibal loolu foofu nii dañuy wër di ko ketal kenn du ko ketal ndax alaaji Maalik mbiram ndax ko yoon yàlla waaye ay nit yu baax ñoo xam ni lu mel ni bokk ci yiw ba seen njariñ la ñu ñëw àndandoo bokk ca joxe ci seen yéene. Dak Médina Dak Médina